mbokk yi ñuy déglu ci Mouslih TV ñu ngi leen di nuyu te di leen di ziar wax nañu suñu émission bi paase ne jigéen juróomi jigéen ñooy sëy ci néegu sëy jigéenu juróomi jigéen ñoo am ci néegu sëy mais juróomi góor ñoo am ci néegu sëy ñu jël groupe bu njëkk bi tuddee leen groupe A li leen di symboliser moo di mbonaat waxoon nañu ne mbonaat dafa am ay qualité boo amee soxna soo xam ne mbonaat la walla jëkkër boo xam ne mbonaat la muy groupe A bi mooy soxna soo xam ne ku bari jàmm la xamul fitna xamul xuloo xamul xeex xamul doorante xamul sànnante ay kàddu yu ñaaw parce que yaruñ ko ci loolu mënut a vivre ci environnement bu mel noonu bon soxna soosu ki koy de góor bi ko war a denc dafa war a nekk góor goo xam ne moom tamit nitu nitu jàmm kese la xamul ay buggul ay du dund ay gis nga soxna si góor boo xam ne nitu na la munu koo denc góor goo xamante ne balaa muy am jàmm xeex walla mu dóor munu koo denc góor goo xamante ne nekk fi di meroo ak yow lay def mënu koo denc parce que ki ngay seyal soxna soxna sa loo xamante ne naturel naturellement moom jàmm rek la mën a ci jàmm rek la mën a dund bon ku am jàmm ni moom rek moo ko mun a denc am na yenn tàngooru góor yoo xam ne boo leen boo ko ko andilee mooy sëy bi du mu sa dem parce que moom soxna si du mu sa nekk en l'aise parce que yow sa tàngoor nga yor ak sa fitna te moom xamul loolu munu ko dund bon sëy boobu du gudd fan waxoon nan ko ñaareel ba mooy lépp luy dund ci géej mooy dafa dafa set est-ce que set lu baax la ci nit waaw waaw lu baax la ci nit bon soxna si di la seyal soxna su set wecc la dàllaam du tilim yéreem du tilim néegam du tilim ay bagaasam du tilim waañam du tilim lennam du tilim lépp a set nature boobu la amee noonu lañ ko yare gis nga soxna soosu ki ko mën a denc ci buumu sëy ba sëy ba continuer mooy góor goo xamante dafa set ni moom waaye góor goo xamante ne ku jigéen ki moo la gën a set boo buggee denc ci soxna soosu soxna si day dem ba am problème parce que am na góor yoo xam ne tilim ak salte dérange wu leen te ndaw si bi natiiram du loolu lépp ma set loolu moo tax léeg-léeg nga gis ngeen baal ma ci kaddu bi góor goo xam ne yàlla def laa war saka nga am soxna bu set wicc foo ko fekk mu ngi soccu foo ko fekk mu ngi téye borosam di borosu foo ko fekk xet bu neex lay yor mais yàlla natu ko ak góor goo xam ne mun na toog trois jours du soccu mun na toog trois jours du utiliser li nga xamante mooy broche nga xamante bu waxee rek day mel ni ab ab benn mala moo dee ci kër gi bu ko defee ndaw si day jeune wu day rus du mën a supporter salte boobu ak xet yi bon boobu nga xam ne pourtant dérangé wul ki mu dekkal kazalik xam ngeen set lu baax la mais attention nit bu setee dafay siixlu nit bu setee dafay siixlu moo tax jigéen boo amee jigéen bu set wecc yow ku góor ki war ngaa fexe góorgóorlu ba set ni sa soxna setee nga set ci sa bopp set ci sa làmmiñ set ci say pokotaan set ci sa lépp lépp lu war a set na set parce que boo ko deful rekk ki nga dekk ki nga dëkkal da koy dal di jone ci biir néegu sëy bi am na ay góor yoo xam ne dañuy liggéey ba wàcc si ak seen ñàkkaay ak seen pokotaan yu ñaq yu ànd ak xet ak seen dàll yu poussière ak seen tànk yu poussière nga fekk soxna si dafa lépp lix nga ñëw rek dal sànne ko ci kaw lal bi bu mu lay may ndox boo yëkkatee pokotaan bi xet bi ci gën moom day mel ni ku bugg a ku la ne nati eh, façon boobu ngay dundee ak soxna soosu sëy sëy boobu dina yàgg nax na la mais tamit ni loolu amee ci góor noonu la amee ci jigéen léeg-léeg nga gis xale bu góor boo xam ne depuis ba mu nekkee célibataire dafa mus a set daram du tilim te nit bu setee rek ni ma ko waxee dafa yomb a siixlu bon jigéen bi koy seyal war ngaa fexe ba set setaay boo xamante ne dina tolloog setaayu sa jëkkër walla mu ko bu ko defee nag yow soxna si nga war a yittewoo sa karaw parce que da ngay gis jigéen boo xam ne mën naa lettu ba bopp mujjee di xesew te du tax mu di di lett yi bu fekk bu fekkee da am jëkkër boo xam ne nag moom tilim ak xet daf koy déranger dafay dem ba enfin daf lay siixlu kasaalik am na jigéen yoo xam dañoo siix dañoo xaw a négliger ñu jéggal ma ci kaddu bi war a yittewoo seen xetu gémmiñ parce que am na góor goo yoo xamante ne am na xet yoo xam bu leen bu jigee ci yow ñëw ci moom rek oh yàq nga addunaam waaye yittewoo fu gën a sori ci sa yaram mooy fexe yow ku jigéen ki di sol rafet di sangu ba set di utiliser ay savon yu neex yu xeeñ di utiliser ay parfum macha allah di utiliser ay cuuraay yu am solo di utiliser lépp loo xam ne mën naa setal sa yaram surtout ma rawatina comme ci néegu sëy lañu nekk ak tàngoor yu métti yi ñu ne am na produit yoo xamante ne man nga koy jëfandikoo ci sa bopp d'une façon boo xamante ne doo déranger sa jëkkër ci lenn mais foo toll benn xet bu nekk nga koy jox tey boo demee ci pharmacie am na ay façon saabu ak ay produits yoo xamante ne nit ki mën na koo utiliser ci ay pokotaanam ak ay naqam ba ci côté sexam parce que lépp war a lit parce que da ngay sey ak nit loolu dafa bokk ci biir néegu sëy mais kazalik dafa bokk ci biir néegu sëy booy dund koo xam ne nit ku siix nit ku set na te siixlu nga fexe ba boo koy préparer li mu war a lekk ah nga préparer ko ci façon bu moderne ci façon bu rafet ci façon boo xamante ne dëppoo na ak jamono léeg-léeg damay tooñ ma ne léeg-léeg gis jigéen boo xam ne daf lay toggal maafe mais boo fekkee fi muy jëlee tiya dege bi di ko def ci ndox bi pour man koo jaxase ba mu nekk benn zaaru benn saaru liquide ah au mu def au mu utiliser ay kuddu ay kuddu luus ay nangam ak nangam mën na jël loxoom naan pacacik pacacik pacacik parce que nga naan nii la ko maam ya doon defee nii la ko mère ya mais adduna développé na ah bon boo fekkee soxla ngay defaral nit ñi ak lekk surtout sa borom kër fi adduna toll tey war ngaa wut ay jumtukaay yu tollook jamono. balaa ngay dugg ci waañ bi nga sabu ba set am ton boo xam ne moom ngay utiliser pour togg raxas say loxo ba mu set wécc raxas say ndab ba mu set wécc defar lépp mu lis sol say gant yor say kuddu yor say kuddu luus yor say fourchette tekk yoo xamante ne gis nga am na noo koy préparer rek nu mu mën a mel nit ñi dañuy sawar pour lekk ko ndax yow ni ko préparé mooy njëkk a attiré nit ñi waaye léeg nga gis jigéen boo xam ne day togg añ jóge ci waañ bi mel ni ku soj dal di xëbbakan ba ne fépp am na ko toll fële di ko xool au bu dem wuti saabu raxasu ba set utiliser torson waaye boo moytul mën na fomp noonu ci ser ba rek continuer wàcc ca biir waañ ba bon nit ci tolloowuñu dafa set wecc nin ko yare seen kër difi ba mu nekkee xale ba ba mu nekkee élève ba ba muy nekk collège ba noonu muy ñëw di la seyal si dafa nekk nit koo xam ne daa set wecc yërëm du tilim dàllam du tilim néegam du tilim lépp may set lépp may rafet lépp a te am na tamit ay góor yu mel noonu sa jëkkër bu amee qualité boobu wala sa soxna am qualité boobu kan moo ko war a seyal mooy jigéen bu set boo xamante ne setu jigéen bi dana tollook setu ko góor ki wala mu sut ko jërë jëf ñu ngi yëm ak yéen ci kàddu yooyu